jërëjëf auzu billaahi mina ginnaaw mu sante yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi di sant tamit suñu kilifa yi nga xam ne tey waaw ah, bu Sénégal agsi fii ñoo ko fi agsi eh, may wax ni man la tey Pape Sidi ñëw fii ci leeral bëgg am tamit lu fi leeral tuuti ak lu ñu fi waxtaane ak yéen Pape di Ndiaye la maire de Sadio. Euh, jërëjëf euh, defe naa commune Sadio bu ñu ko tuddee ak position bi nga xam ni moom la nekk moom la am position ci ci au niveau ci biir réew mi. wax commune bi comme li may wax rek commune Sadio euh, defe naa ni bu ñu ko tuddee rek ñu bëri dina am lu seen xel nekk defe naa ni suñu jafe-jafe tey bi nga xam ne moo ci njëkk mooy dañoo enclavé. mooy pour tey commune bu toll ni Sadio ak tool dayawam ni mu toll problème am mooy dafa enclavé pour tey nga dugg fii amul benn yoon tey bu baax boo xam ne mën nga fa dugg à chaque fois on le répète fu ñu toll dañ koy waxaat tey boo jóge woon Sadio euh, Mbacké entre Mbacké et Sadio c'est quarante c'est quarante deux kilomètres te boo jóg boo ñëwee au niveau de l'arrondissement de Taïf arrondissement Taïf Sadio c'est douze kilomètres non bitumé douze kilomètres yooyu seulement mooy suñu problème boo jógee Sadio dem Colomane aussi même chose c' est vingt cinq kilomètres mais vingt cinq kilomètres yooyu tamit yoon bi baaxul entre Sadio et Daara même chose entre Sadio ba Linguère même chose entre Sadio ba Gassane mooy beneen commune bi ñu bi ñu dendal aussi c' est chose luy leeral wax bi mooy on est beneen bi ci des mooy problème mu bu ñuy wax problème mu ndox ndaxte tamit Sadio dañu dugg ci loo xam ni problème mu maraîchage. xale yi ni nga dégg tey ñu wax xale yi euh, naan Barça wala Barsaq pour war a liggéey ñun dañ ci teel a jóg ndax lu mat 10 ngi nii ñun ñu ci travailler set xale yi ba xam nu ñu mën a def pour retenir xale yi léegi dem nañ ba gis ni maraîchage bi xale yi intéressé na leen mën nañ ci am loo xam ne mën nañ ci dimbali seen kër dimbale ci seen waajur mais nag dem nañ ba mu ñuy indil ay problème ndax on dañ ci am problème ndox tey boo ñëwoon ci biir commune Sadio seul Sadio centre y a deux forages yuy pompé 24 heures sur 24 heures mais boo fa ñëwee problème ndox day manqué parce que nit mi bu ñu waree bëgg a liggéey mënoo ni kii danga nga liggéey mënoo ni kii doo liggéey kon loolu dañ koy wax surtout tamit nga duggoon ci biir commune Sadio bi même chose foo ci dem tey dañu am problème mu ndox ndaxte ndox bi yàlla dimbali nu Sadio ñu am ndox bu neex ndox boobu tey. ñu am suuf bu baax am xale yi nu ngoo liggéey kon je pense que nii bu ñu amee ay forage dinañ ci liggéey bien vrai que état nag mi ngi ci jàpp ndax defal nañu deux forages mu desaat yeneen ñu ñu war a defal état aussi programmé fi yeneen forage loolu nag la ñu bëgg état dimbale ñu ci ba liggéey nga xam ne xale yi dootuñu mën a dem fenn danañu def toujours liggéey bi nga xam ne ñoom war nañ ko def defe naa ne loolu moom tey moo ci li ëpp solo beneen bi ci des mooy suñu village yi parce que dañoo am ay village dëkk yu mag yoo xam ne amuñu courant soo ñëwee ci commune Sadio Sadio seul centre bi moo fi am courant ak Gerle mu des dëkk yu mag yoo xam ni amuñu courant même la commune mi ngi forcer boppam jéem a fexe am commune yoo xam ne dina fa yóbbu courant mais loolu la ñuy wax état programme bi mu defoon au niveau de Sadio pour que yeneen dëkk yi am courant ñu essayer ñu ci jàppale pour que ñu mën a am courant beneen des na aussi parce que léegi ku wax dëkk wax éducation. ndax Sadio idi xam nañ ni commune bu mag la ndax li may wax chaque fois je le répète Sadio bu ñu nee Touba Mbacké après saajo mooy ñëw on a besoin d'un lycée soxla lycée boo xam ne pour xale yi parce que xoola tey Sadio li muy produire ñaata ñoo fi génn ñu am tey seen seen diplôme euh, BFM e war a génn dem jàngi mënuñu dugg Taïf mënu leen yóbbu fu day fa am na xale yoo sax dañuy obligé bàyyi jàng mais loolu nag ñu ci wax état di ko dox chaque fois li ñu bëgg mooy état mu dimbali ñu ci. ba nga xam ne ñu am benn lycée au niveau de Sadio xale yi mën a tee bañ a dem voilà waaw merci je pense que ni eh, remaniement bi nag jaaxal nañu ñuy dégg bi ñu koy dégg nii danañu jaaxal tamit bu ñu xoolee tey am na ay post yoo xam ni am na eh, ay portefeuille yoo xam ne ministres ya fa nekkoon ñu jëlee leen fa xaw nañu jaaxal mais nag dañuy am feneen fu ñuy xool dañuy xam ni gaal gi la capitaine c'est le président de la république moom la ni ko ah yow la ñu dénk état Sénégal dénk la politique gu Sénégal kon xool moom mooy xool nu gaal gi mën a demee mooy xool fu baax ak fu baaxul kon defe naa si bon bu defee ay changement changer poste am li ñu ci mën a wax pour le moment jàppale ko suñu bopp jàppale ko ko mooy il faut que ñu déglu ba xam lan la mais commentaire yi nekk naan ministre bi waroon a dem ki président daf ko génne pour lii man je pense que ni foofu du liggéey bi gën a jàppale président mooy ak gën a jàppale suñu bopp. parce que président bu Sénégal doxee mais doxalul président donc Sénégal yëpp la doxal kon le problème mooy commentaire yi presque jaru ko ndax nag président moo amoon choix ci ku ko neex mu dem xool la jël la te je pense que ni réerowul ak ñooñu dañuy bëgg nag am na politiciens dañuy bëgg dugg ci biir nag kii dafa président li tax président génn ko lii moo tax non non non yooyu yëpp man je le prends que ni c'est des détails beneen bi ci des mooy département Mbacké ñun moom à tout le temps dañ koy wax ndax tamit nag. séddale bu ci nekk nit ki dafay bëgg jege ndax dañu ñuy séddale boo fekkee fu fa ñuy séddale tamit na am ku la fa nekkal ka la fa nekkal mooy bu ñuy séddale bu ñu la naree fàtte wa illaa ñu nar la def jox cër bu tuuti wala leneen cër boo mérité mu mën a taxaw wax loolu mooy tax toujours fu ñu toll di wax président de la république ni ko ah département Mbacké day bu ñu sañoon ñu am fi benn ministre boo xam ne au moins ci département Mbacké lañ koy tudd dinañu siggal ñun politiciens mais dina gën a jàppale tamit pour population Mbacké ndax fu ñu wax tey problème bi mooy pourquoi Mbacké amuñu euh, un ministre pourquoi Mbacké mais loolu nag président dañ ko koy wax dañ ko koy yëgal te dañ koy ñaan je pense que ni loolu moom lu weesu la xanaa kay li fi des mooy mais am na ay yeneen euh, président am na changement parce que bu ñu xoolee yaa directeur généraux yi ñu ngi fii te je pense que ni ñu nañ nañ nañu ci présidence xoolal ñoo xam ne tey ci département Mbacké bii dina leen fi jël ñu bokk am na fi Mbàkke am na fi ay cadre am na fi xale yoo xam ni ay cadre lañ te pare nañu pour liggéey liggéeyal président de la république liggéeyal Sénégal liggéeyal aussi le département je pense que ni loolu moom suñu ko defee président dinañu dimbale ndax te tamit nag bu ñuy wax Mbàkke ça représente bokk nag ci pour ci Sénégal ndax fu Touba bokk ndax Touba yàlla moo ko def ni mu mel kon nag département bu mu bokk wax tudd ñu ni euh, def nañ remaniement bokkaloo ci kooku président moo ko xool moo ko xam mais ñun daf ñu xaw a jaaxal liñ ko ci waxaat nag dañ koy fab lépp delloowaat ko suñu confiance di ko ñaanaat encore une fois mu gën a jàppale département bi gën ñu jàppale ñun ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di ci di ko jàppale mooy que ñun aussi ñu am loo xam ni dinañ ko mën a sigee dinañ ko mën a sagoo dinañ mën a taxaw ci nit ñi wax ak ñoom voilà mais xam nga foofu Sénégal aussi dafa am toujours loo xam ni moo ñuy téye mooy nit ñi su nit ñi amee ci yow confiance benn nit ñi di la déglu ñaar nga am aussi moyen yor loo xam ne nit ñi danañ lay déglu xam nga luy gën mooy ngay wax nit ñi dëgg loolu dafa am solo parce que je le li tax ma di ko wax mooy parfois da ngay déglu yoo xam ne yow ci es un peu frustré te c'est pourquoi ma koy wax damay jaar ci tur bi di di Bougane Gueye je le respecte trop parce que man dama ko bëggoon depuis que muy ne ci bokk liggéey boppam di def mais nag. l'autre jour dama gis mu def benn sortie ci benn émission bu muy def bi mu taxawee mu wax wax joo xam man bi ma ko déggee mais dama ne lii pourquoi Bougane nu mu ko waxee parce que Bougane ñëw na Sadio bi nga xam ni moom booba lay nepp di préparer day nekk candidat ñëw na fa dem na adju deuxième adjoint au bi dalal ko mu waxtaan ak moom adjoint au bi on a aucun problème ñu ngi liggéey suñu liggéey amuñu problème mu dalal ko mu waxtaan mu demaat candidature am jàllul Bougane ci la mujj ñëw Sadio. mais l'autre jour ma dégg ñu ni Bougane def na benn émission wax na ni Sadio ba mu fa demee jàppale na fa Idrissa Seck ba ñoom am nañ fa résultat boo xam ni il paraît que 14 voix la fa maire bi fa nekk moom la rawee woon adjoint au maire mais je dis que c'est faux foofu Bougane li mu fa wax nit mais damay ci rafetal mais du dëgg nit aussi kilifa dafay war di wax loo xam ni su ko nit déggee suñuy taxawaat di ko weddi ñu am fu ñu ko teg fu wóor à Sadio je le dama ne la coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi fa amoon 4236 voix sa Seck am fa 664 voix mais def leen différence bi je pense que ni loolu c'est combien de voix c'est mille et poussière nga taxaw ni 14 voix mais loolu nit waru koy wax te li ñuy wax nii bu ko neexee ne demaat ci PV yi su bëggee buzz wala mu bëgg ni maa doon jàppale Idrissa Seck na sem feneen mais c'est pas du fii du Sadio ku xam Sadio xam ni la fa nekk. démb moo fa nekkoon moo fi nekkaat tey ba mu fa ñëwee am nañu ko dalal mais bañ ko waxee tam ba mu demee ñun su ànd jotee dañuy ànd li ñuy wax bu wax jotee dañuy xàccandoo di dóorandoo kon li ñu koy wax mooy li mu tax woon wax ko ci kilifaam respect bi ñu ko jox na taxawaat te teleem booba ni dafa def erreur mu weddiwaat ko 14 voix wute na ak mille cent 4236 ak Idrissa Seck am fa 664 voix. je pense que ni loolu différence bi gis nga ni mu toll loolu rek laa ciy wax di ci profité aussi di wax ni nañu bàyyi politique politicien bi ñuy def di nax nit ñi président de la république mi ngi liggéey àggaguñ ci deux mille vingt quatre te foofu la mu war a jeex kon fi mu bu ñu fi toogee nit ñi di wax nit ñi naan bon pour pourquoi président def lii day préparer troisième mandat je pense que nii loolu tant que ñu ngi koy dugal ci xel nit ñi Sénégal du avancer tey Euh, deux mille vingt deux mille vingt et un di dugg si président ba deux mille vingt quatre président je dis trois ans yu fi nekk yoo xam ne président tey mooy yor Sénégal mooy yor politique gu Sénégal mais loolu nañu wax nu ñu ko jàppale opposant yi nañu dem ñu opposé opposant moom nu mu mën def dafay opposé mais y a des choses yoo xam ni di ko dugal ci bopp nit ñi di ko wax ci di ko lëre nit ñi tout passé tout leur temps que ni président troisième mandat troisième mandat je pense que ni président Macky Sall xam na politique na dund na ko te aussi c'est quelqu'un boo xam ni lu mu la wax dee moo koy dindi nit ñi nag lu leen neex ñuy commenter ñun nag waa Sadio ku ñu xamul aussi deg nga ñu du ñu jàppandu du ñu jàpp fab nit rek tee la pour topp la non dafa am ay qualité yu ñuy xool ci yow président de la République avant ñun ñuy liggéey ak moom dañ ko jàpp dañ ko xool vérifié waat ko xoolaat ko xam ni muy doxalee ñu ànd ak moom liggéey kon nag du ñu nangu aussi sorox sorox yi ku dugal fii génne fii non. loolu su ñu ko defee dañu ñu tardel Sénégal te mënuñu tardel Sénégal Sénégal il faut mu dem bu ñu xoolee par rapport damay wax ni na nañu xool Covid bi dong passé ñu ko président de la République géré bari na fi ñoo xam ne tey ay opposants lañ ak ñeneen ñoo xam ne tey li ñu doon yéene mooy Sénégal néew yi tëdd mais xoolal ni ñu ko géré prog lu dama ne lu fi mën a ñëw nag noonu la ko président de la République def tout cas daal ñun waa Sadio la commune de Sadio ci sama gémmiñ ci sama parole li may wax ni ñun ñu ngi ànd ak président de la République. ñu ngi koy jàppale ñu ngi koy déglu ñu ngi koy ñaan aussi mu jàppale waat les communes rurales si je dis bien les communes rural mooy communes yi nga xam ni tout récemment la ñu jógee ci eh, communauté rural ñu def leen ay communes yooyu na leen gën a jàppale ndaxte nit ñi li ñuy wax ku yokk sa dépense ku la yokkal sa njël war na yokk sa dépense te dañ ñoo yokkal suñu njël kon dafay baax nag ñu yokkal suñu dépense bien vrai que mi ngi ñu koy yokkal mais nañu ci gën a jàppale population bi xam. xàmmee xam ni euh, ñun aussi ñu ngi pare pour fexe yëkkati suñuy commune ndaxte tamit li ñuy wax Sénégal émergent Sénégal muntu émerger wu tant que communes yi émerger jóguñu émerger wu bokku ci te communes yi li leen ciy boole mooy il faut que ñu jàppalee les maires su ko dee jàppale la population commune yi man a émerger wu mën a liggéey mais président de la république am jàmm Sénégal gépp am jàmm